وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله دائرة المحسنين والمحسنات ñu leen nuyu di leen siyaara bu baax a baax a baax baax di nuyu macha allah président Babacar ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi di nuyu imam Mor men fekk bunt bi alhaaji Mor liggéey bi rafet na macha allah yal na yàlla fay la ak képp koo xam ni rek yaa ngi ci biir kër gi di rafetlu njàngale mi macha allah am na solo ustaas góor macha allah imam siis barakallah ak ñëpp rek yal na yàlla fay leen taxawaay rafet na trop di nuyu baaba mboolem fu waay nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ñu commencé Sénégal Maroc Espagne Italie Brésil Allemagne tout ñëpp rek nuyu naa leen siyaar leen su ko defee rek xam ñu ñëw rek ci sunu leso tay, tey ñoo ngi war a jël baabu salaatil jumaha maanaam bunte bi wax ci wàllu juma walu juma la sa aju inchallahu tey bunt boobu lan war a jël borom xasmaawi mu ngi wax naa baabu salaat jumaha wa salaatu jumahati fardu xalal ahyaan wa laha surutu wujubin wa arkanu wa addaabu wa ahcaaru tubbihu takalufa hanha wa ama surutu wujubiha fa sabhatu الإسلام والبلوغ والحقل والذكورية والعرية والإقامة والشحة وأما أركانها فخمسة أول المسجد الذي يكون جامعا ثاني الجماعة وليس لهم حد inda malik bal la budda an takuna jamaatan tatakara bihim xariyatu wa rajjaha bahdu a'immatina annaha tajuuzu bi isna hassa rajulan باقين لسلامها ثالث الخطبة أولى وهي ركن على صحيح وكذلك خطبة الزانية على مسهور wala budda an takuna baxda sawaal wa xabla salaat aywa moo tax mu ni baabun li buntale salaatil jumaati si julli jumaa bu nu julli jumaa nag mooy bis ba bis bi del si muy ajjuma ni wa salaatul jumaatu julli juma fardun faratala Halal ahyaani si jëpp jëmm waaw moom ajuma mu ni wallaha ñeel naka suruutu wujubin sarta yu koy waral sarta yoo xam ajuma ji war wa arkaanu ak ay ponk am naka moom ajuma wa Adabu am na teggin mom aljuma yun sa wara def wa ahshaaru amna ay nganta yo xamni timit tamit bi yo amni dana dagal dana tax dana dagan taqallufa hanha nit ki wute sa aljuma ji day am nganta yo xamni timit bu arwe nit ki aljuma wàcc na motax wa ahshaaru tu biixu taqallufa am nay ngante yoo xam ni day tax nit ki dina mën a tarde ajjuma wala dana mën wuutu te dara du ko sa fekk waaw munu fa amma suruutu wujubiha sarta ya nga xam ne moo koy waral nag bokk na sa mu ne fa sabxatun juróom-ñaar la mu ne ba jag al islaam islaam kon nit ki il faut mu nekk islaam wal bullooxu ak mu majoor boobu ajjuma war na ka jumba mu ne wal xaqal ak mu am xel xel ma nekk fa kon koo xam ne amul xel bokku sa mu ne wal sukkuriyatu buñ waxee ko amul xel nag mooy koo xam ne si misaal mooy dof mu ne wal sukkuriyatu ak góor wal uriyatu ak góor waaw mu ne wal iqaamatu ak saxuwaay wa shexatu bu wér benn yii daal muy sarta yi nga xam ni mooy tax ajjuma taxaw waaye mooy tax ajjuma mën a wér waaw mu ni wa amma arkaanuha ponkay nag moom ajjuma mu ne fa xamsatu juróom la maanam ponk yi juróom la yi nga xam ni mooy yi nga xam ni moom moom it bu si manqué rek ajuma ja du wér wala day manqué mu ne awlu ba sa jëg ba sa jëg almasjidu jàkk almasjidu jàkk lesi joo xam ni lesi joo day nekk jaamixan ñu fay daje waaw maanaam al jaamix boo baatu jaamix mooy foo xam ni lu tax maanaam foo xam ni nit ñi dañ fay dajaloo kii day jóge fële kii jóge fële kii jóge fële ñu daje fa nga xam ni loolu si ajjuma rek lay am du am si beneen bis bi dul ajjuma su ko defee nag moo tax baatu jaami daal di taxaw moo tax mu indi baatu aljaamix moo tax mu ni wa xamsatu ponk yi juróom la awla ba sa jëkka almasjidu jàkk la si joo xam ne yëkkunu day nekk jaame xan ñu fay daje kon day am benn place boo xam ne jàkk lay doon comme baatu jumaa maanaam bis bi moo tudd ñu ni al yawmul jumaa day la bisu waaye maanaam jàkk ngay dégg ñu na jakk yanante bi al masjidul aksha al masjidul masjidul khuba manam kon ñu xamni ni bi dëgg turu turu juma manam dajé gën fay dajé mo tuddu juma mu bisab al juma waye al masjid turu bi dëgg manam moy jakk waaw légui nak ñun li ñu mëna gëna xamé jakk juma comme juma moy fo xamni nit ñi dañ fay dajé waaw jakk nak moy fo xamni man mën duñ fa daje ajjuma ba ajjuma waye mom dañ fay dajé rek difa julli ay waxtu juroom ñu tudé ke jakk waaw mo tax tay wo déwon ba sa àll ba sa digg àll ba nga tabax fa sa juma même bu fa kenn dul julli juma mën ta tuddi juma ma manam du manam tay masjid jakk la waye nak ñak dajé gën fay dajé difa julli ajjuma mo wat moo tax kon man tudd juma waaye legi mom fépp fo xamni dañ fay dajje rek fofu dañ koy tudd juma muy bis bi ñu ni juma yi ci le la juma tey yowul juma ha tay la bisu ajjuma waaye fan lañ koy defee nak ñu koy defee al masjid ci jakka ja waw kon kenn du dem ba sax tay bu ñu won fenn ci ben place ñu na nan dem place dal dajje fa an dem téré julli fa juma mënta ndax lu tax dafa am ay sart tey bu julli it jotoon julli it nga xam ne moom foo ko defee benn ñu def ko sa ndànd fay-fay ga wala benn ñu def ko si jàkka ji mën nañ kaa tuddee ñu tey la julli it waaw moom foo ko defee moom day baax waaye nag bu dee jumaa moom il faut mu am loo xam ne mooy firndeel ni fii mooy jumaay ji maanaam fii mooy masjidu mooy bis bi fi nit ñi daje ñu tudd ka maanaam yowmul jumha waaw moo tax mu baatu baatu aljaame ñëw foofu maanaam mooy foo xam ne dañ fay daje waaw buñ fa daje nag ki nga xamante ne si ga jot naa gis mbokkam dina gisee moom am na koo xam ne juma ajjuma ba ajjuma lay ñëw si jàkk ji am na koo xam ne moom man naam bis bu nekk mu ñëw boobaa nag ñëpp man faa daje ñu julli juma am benn message buñ jàllale su ko defee kenn ku si nekk daal di dellu wax moo tax mu ni zaani ba ki ñaareel ba aljamaatu mbooloo aljamaatu mbooloo ma waaw kon mënta ñàkk tamit am mbooloo mu fay daje mu ni walay sa nekkul lahum ñel addu lim xenda malik si malik maanaam mbooloo moo fa war a daje pour julli juma ñu ni da amul si malik benn lim buñ lim waaye mu ni daal ba li am ba laa budda mante ñàkk daal an takkoona muy nekk an takkoona mu nekk jamaata di mbooloo moo xam ni tattaqarra dañuy sax si dëkk ba dañ fay tasaaroo bihim ñoom alxariya alxariyatu su dëkk ba waaw day nekk ñoo xam ne su dëkk ba foofu la nekk man fa taxawal seen juma dëkk fa te chaque jour di di fa tasaaroo ba pare tamit mu nekk foo xam ne ab dëkk la boo xam ni dañ faa dëkk nga xam ni kenn du dem bàyyi fu jumaa ji bu jàmm rek day am waaw kon kenn du ko samp juma moo tax kenn du ko samp foo xam ni lu mal ni rek fu ay nit daje def fa ak màng rek am ay fan voyage fa dem wàcc ka fa moo tax fan kay def tamit mooy foo xam nit ñi dañ fay dëkk ba pare di fa yeewoo di fa tasaaroo chaque jour di fa jullee di fa sëlmale moo tax mu ne nag jamaatu mbooloom tataxara bihim xariyat il faut ñu nekk foo xam ne sa dëkk ba wala dañuy nekk sa dëkk boo xam ne ñoom ñëpp fa la ni jullee di fa sëlmale di fa tasaaro mu ne wa rajjaxa sunu delloo baxda naa len na si boroom xam-xami waaw ñu ni annaha naka moom ajjuma tajoosu dana dagan Bi, bisna bisna bi isnay asra rajulan manam fukki góor ak ñaar fukki góor ak ñaar fépp fo xamante ci si fa man fa selmale ñu ni bu boba aljuma ja day wër moo ñu ni aljuma bu won am ñu fa dajé rek té ñafa dajé mat fukki nit ak ñaar yoo xam ne ajjuma war na leen baaxii na yoo xam ne falanu sax di fa sëlma li salaamiha di fa sëlmale ah bu boobaa kon seen ajjuma day wér kon ajjuma ji day wér si maanaam lenn si yenn borom xam-xam yi surtout maag si ngirum imam Malik ñoom wax nanu lool ajuma tamit nekkul loo xam ne dañ koy tàqatle bu ñu jullee tey bii ñëw ñu jëlal déedéet bu ngant amee na comme li fi jaaroon lu mel ne ay corona wala feebar yooyu comme yi xewoon moom yooyu ngant la ndax ajuma dafa am ay sart tamit yoo xam ne bu la ërwee bu booba ajuma da lay wàcce comme liñ ko waxee woon si ginnaaw ni am na ay ngant yoo xam ne day tax nit ki dagan du dem julli ji waaw moo tax mu ne kon fukki góor ak ñaar buñ fa dajee julli rek baax na mu ni saalisu ba ka ñetteel alxutbatu alxutbatu ula mu ni xutba bi tamit ponk la mënta ñàkk kon juma ba amul xutba rek wérul waaw moo tax mu ni waxiya moom rugnu ponk la muy xutba bi xalaa saxihi si mun waka saleke naka noonu basi xutbatu zane mun même xutbam ñaarel bi tamit ponk la kon xutba premier beeg ñaarel bi neenan yépp ay ponk lan am na si ñenn ñu wax kom lu mel ni risala sa saraaba moom day wax naa ñaari xutba yi ñoo taxawe ñaar rakke yi ndax ajuma tusbaar la te tusbaar laeg bun dindee ñaar rakke ya ñaar rakke yi moom lañu tuddi ajuma ñu ni ñaar rakke yi des ñu ni moo taxawee ñaari xutba yi moo taxawe maanaam ñaari rakaa yi des waaw ñoom moo taxawee ñaari xutba yi moo taxawee ñaari rakaa yi si des waaw moo tax tamit xutba mënu see ñàkk imaam bu doon xutba ba am ngànt sax dañuy indi keneen wala ñu xaarandi ko tuuti téere bi dina ko si keneen ñu motali waaye xutba moom bu amul si juma rek ah xutba du xot juma ba mënta wér moo tax mu ni saalisu ba ka ñetteel xutbatu ula xutba bu njëkk ba wa hiya moom ruknu ponkal ala saxiix si lu wér wa kazalika naka noonu xutbatu saanit même xutbam ñaareel ba ala masuuri si lu gën a siiw mu ni wala budda mënta ñàkk nag mënta ñàkk an takkoonu mu nekk ba de sawaal ginnaaw buñ sawaalee wa xabla zallaat ak lu njëkk ñuy julli kon xutba tamit chaque fan kay defee maanaam mooy baxda zawal ak ginnaaw maanaam julli ak lu jëkk ñu julli waaw sawal nag liñ si gën a xam ñun une heure demi fii waaye sawal maanaam nee noo dëggin wax sawal dëgg maanaam mooy bu imaam xase ba toog si min bar bi nodd googu nga xam ni moom la ñuy nodd su ko defee buñ ko noddee nag imaam daal di ñëw xutba après ñu dooro julli motax mu kon day nek ah baada sawal gina buñ sawale wa khabla salati digeenta julli ga sawal gi fofu lay khutba bi nek wa mun wala man ta ñak an takkoon mu nek nag khutba ga mimma tuzammihi al arab mu ne kon khutba gi man ta ñak mu nek arab arab khutba gi mu ko bañ a doon comme li coow li nag bari na léegi waaye gis na ni xutba moom si jamono yenente ba si ñi topp si ginnaawam taarix bi yëpp fun musaa julli dañuy xutba si arab doonte ñëpp déggunu arab wala ñoom ñan doon wax ñëpp doonul ay arab waaw ndax képp koo xamante ne si rek doo wax arab xajam ga xajam xajam comme képp bépp la muy wax arab rek xajam la kon adam nekul nit ki ñuul rek wala waye kep ko xamne yow deggo arab rek manam yow ajam nga te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabam, ak ñen ci borom xam-xam yi bari na ñoo xamé den si ci jamono yenente bi kenn ko ci nek nit am ñoo xamante ne si ñan lan doon wax wala ñen fa yoni won yi wax ak ñoom xagna amna ñoo xamni ci manam lan doon wax duñ ko dekk te teewul boobu xutba yi dañ koy def arab moo tax al amin daa wax naa man képp koo xam ne topp naa si sa ginnaaw nga julli te xutba woo arab boobaa damay génn julli waat tusbaar waaw moo tax tamit maanaam ah, xutba moo moo tax tamit ajuma saa boo ñëwee maanaam ñaari rakkay boo fekkee benn rakkee bu la rawee nga fekk benn bi da ngay mottali benn am nga ajjuma waaye nag tey boo ñëwoon di julli juma fekk imaam di taaya wala fekk imaam rukkoo ba pare ngay door a ñëw boobaa mënatoo am ajjuma da ngay julli ñeenti rakk te xam ne yow tusbaar nga am waaw boo fekkee nag rakk bu mujj bi moom loo si fekk rakk bu mujj soo fekkee rukkoo bi bokk nga si jumaay ji fekk wa rukkoo bi la nga fekke maanaam mooy ab taaya wala ay sëlmal yooyu boobaa yow jullil ñeenti rakk tisbaar te ajjuma jaraw na la moo tax xutba mënta ñàkk mu doon arab suñu jamono léegi nag bari na ah, ay façon yoo xam ni nu ne ñu ngi ko koy tërale moo tax ni ولا بد أن تكون مما تسميه العرب الخطبة والخطبة وتستحب dari sopp taharatu wa tustahabu taharatu fihima mm, sopp nañ si aji xutba ji moom day laab waaw si ñaar yëpp wa fi lay waral tahaway ba loxuma si ñaar khutba yi tara du deng deng amna khutba nak manam mom bii mooy eh, taxawaay bu njëkk baay gën a gudd wala bii mooy gën a gàtt nee na lool moom daanaka amul si solo am message la bu war a jàll rek léeg-léeg nag da dégg gars yi sax comme ni waxee naa am message war a jàll waaye am message bu war a jàll tamit ak nan koy jàllale da si am solo waaye doo ñëw ne message bu war a jàll rek maanaam nu nu neex koy defee waaw même. ki nga xamante ne si daa war a joxe information wala ab xabaar si télé wala si rajo yi wala ñi nga xam ne journaliste yi bala na koo joxe den koy jël xool nañ koy waxeek nan koy defeek na mu waree moo tamit xutba boo ne message bu ñuy jàllale donte message bu ñuy jàllale waaye dafa am ay yoon yu yoo xam ne si la war a jàlle ak yoon yoo xam ne seen ko war a tënk kon bii borom téere yi bindeen xutba mënta ñàkk ñu def arab léegi gars yi bu arab ba pare nag am na ñu koy tekki olof koy tekki olof waaye nag la waaja waxoon rek bu kii bu kii man pël laa dégg kii ni man français laa dégg kii ni man soose lan kay tekkee kii ni man naar lan koy tekkee kii ni man saraxule lan kay tekkee bu boobaa dina doy waar de moom waaw moo tax nag bu doone arab moom yow nga noppalu si rek waaw xam naa su ko defee rek ñoo ngi jéem a yem foofu ñoo ngi jéem yam foofu rek te na xam ni leçon bi gudd na ak waxaal waaye ñoo ngi leen koy jégg lu baax lu si jub rek ngeen ñun ñun ñu sant ko yàlla waaye lu si dëng rek ñoo xam ne si ñun la di ñaan suñu borom xasaba jàlla yàlla nañ ko yàlla jéggal di delluwaat di leen siyaara bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax di sant ñepp rek ñaan yàlla yal na yàlla